jërë ngeen jëf euh, mbokk yi yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi déglu rajo réew mi FM ñu leen di nuyu bu baax a baax euh, sunu mbokk auditeurs yi. pencum réew mi ñu si ànd ak yéen samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h ci réew mi FM ngeen di si ànd ak euh, seen mbokk Abdou Khadre Seck ñu nuyu Mamadou Diawo jàlloo mi nga xamante ni moo nekk ci technique bi mbokk yi tey ci samedi ji ñu dellu am mbégte invité Modibo Diop. mu nekk ingénieur polytechnicien expert consultant international en énergie eau et infrastructure mbokk yi nag tey xam ngeen ne li nga xamante ni moom la ñuy waxtaanee dina laal mbirum économie bu baax a baax. Euh, waaw xam naa dana ñëw ci gën a ñëw ci présentation bi euh, Modibo ñoo ngi lay nuyoo ñu ngi lay nuyu sëriñ Ndiéli di la ziar bu baax di nuyu bu baax sa auditeurs yi nga xam ne ñu ngi déglu rajo réew mi FM saa su ne samedi bu ne. surtout di la féliciter vraiment ci émission bi pencum réew mi nga xam ne da nga ko def ci kàllaama wolof nga xam ne suñu mbokk yi na Sénégal ak bitim réew ñëpp dañ koy déglu te dañ gën a mën a xam li nga xam ne mooy xew ci jamono. di remercier bu baax ci invitation bi. Euh, yow nga nekk ci si euh, li nga xamante ni mooy patronat sénégalais bi ba pare tamit MEDE euh, MEDES nga bokk ci maanaam mbootaay gi nga xamante ni moo ëmb entreprise yu Sénégal fan yi nga xamante ni moom la ñu génn. Euh, amaloon ngeen seen seen assemblée générale ndax mën nga see dellu si tuuti rek ci ndomba tàng bi nga xamante ni yow moom nga ci amee. waa MEDES euh, entreprise la boo xam benn structure la boo xam ne syndicat patronal syndicat patronal mooy ñi xam la liggéey yore ay entreprise yore ay kër yu ndaw yu mag yu yem. dañuy dajale di waxtaan di tënk seeni xalaat di ko waxtaan ak gouvernement bi di ko waxtaan ak bailleur de fonds bi pour li nga xam ne mooy doxal réew mi ñu ngi ciy dugal suñu xalaat MEDES nag dafa am solo parce que am na ñaar fukki at ren te syndicat la boo xam ne vraiment lu mat ñetti téeméeri société ñu ngi ci yoo xam ne yii yu mag a mag lañu yu yem lañu luy yemamaay Sénégal yëpp daal ñu ngi ci eh, di wax seeni bëgg-bëgg nuñ ko bëgg ci pour réew mi doxe ko ak nuñ ko bëgg bëgg pour gouvernement bi tamit di bàyyi xel société yooyu ndaxte loolu mooy alalu Sénégal. macha allah am na ci yeneen nag yoo xam ne tamit ñu ngi fii waaye ñun. ñii lañ ci nekkee bon ren def nañu suñu assemblée général yàggul ba jëlaat président Mbagnick Diop euh, daal di koy sampaat ci kaw ndax moom bii mooy daatam quatrième cinquième mandat buggul woon sax jëlaat mais dañ ko imposé mu mu jël parce que xam nga nit ñi lañuy gis rek nga yore seen organisation mais organisation yi dafa jafe mm-hmm. ndaxte boo xoolee dafa laaj ay tukki yu bari mm-hmm. dafa laaj ay gise yu bari gise yi ci hôtel yu mag la dafa laaj ay voyage dafa laaj ay rencontre ak gouvernement bi dafa laaj yoo xam ne bari na bari boo xam ne il faut nga am nit koo xam ne non seulement dina disponible pour dem ci yooyu ndax danga nga koy yore pare yore sa liggéey mais aussi day toll foo xam ne xaalisam lay génne pour mën a def yenn liggéey eh, parce que cotisation yi bari na dañu ñëpp la ñu cotiser mais yenn saa yi da doy te boo bëggoo dem France tey ñëwaat rek di nga dépenser boo bëggee voyager normalement en 10 jours 5 millions donc boo ma ñi ngi nag ñu gis ne côté boobu yàgg na ci te na ci def alalam ñun ñëpp sax dañuy jàpp mais nag moo ci gën a sawar def alam ñu mayaat ko ne ko nag ñu may nga jëlaat affaire bi parce que bu góor na ko jox keneen sax mais ñun ñoo ci jàpp mais mu nekk dernier mandat bu ko defee nag mandat bii di ñëw ñu préparer xale yi parce que ñun léegi nekkatuñu ay xale. parce que man maa ngi liggéey depuis trent 35 ans. 1984 laa commencé liggéey ba tey xam nga loolu du tey yàgg na. macha ma ñu noonu keneen noonu donc ñu benn xale ba moom la ñu jiitalaat mu continuer défendre Sénégal. pour que li nga xam ne mooy alal bi dugg ci Sénégal ak bi fi nekk Sénégal yi mën ci profité loolu rek la du leneen. macha allah waaw. jërëjëf euh, Modibo Diop comme ni ñu ko waxee sànq yow nga nekk ingénieur polytechnicien expert consultant international en énergie eau et infrastructure li nga xamante ni na tey moo tax ñu invité la ci rajo réew mi FM mooy dafa am benn jàngoro boo xamante ni bu tudd coronavirus mu nekk jàngoro joo xam ne euh, ci Chine. fa la njëkk a feeñe euh, faat fa nit ñu baree baree bari wër àdduna bi nag ba nga xamante ni mujj na sax nekk pandémie ndax bëri nañu ko am gis nañ ne jamono ji tamit bëri na fi nga xamante ni moom mooy euh, Italie bëri na France bëri na Espagne euh, tey ci loolu la ñuy waxtaan jàngoro ji ak jafe-jafe yi nga xamante ni mën na koo indil économie ci am réew ak yéen ñi nga xam ne yéen nekk ci secteur privé bi proposition yi nga xamante ni tey da ngeen ko defal état ak mesures yi état jël yooyu yëpp euh, moom la ñu fa yéenee waxtaanee mais suñu première question. Modibo mooy jàngoro euh, jàngoroy coronavirus euh, ni mu feeñee Chine yow lan moo ci sa ak bi nga ko njëkkee dégg ak ni muy lëmbaajee Chine. waaw jàngoro ji moom xam nga boo xoolee 2019 la feeñ décembre boo gisee ñu naan Covid 19 parce que 2019 la feeñ médecins yi xam nañu lan la xam nañ ne wopp la joo xam ne xaw na nuru grippe mu ngi dox ci àdduna bi te dafay wàllaate. fiiñ nga njëkk a feeñee ci dëkk bu ñu naan Wuhan ñëpp yëg nañ gis nañ ko ndax am nañu suñu ay mbokk étudiants yu fa nekk am nañu sax suñu om d'affaires yoo xam ne ñu dem Wuhan di jënd ay bagages di ñëw Sénégal loolu am na ñun xam nañ bu ko defee ba mu fa feeñee gis nga nañu def ñoom it dafa gaaw yéeg bi dafa gaaw ci diggante ñaari weer yi diggante fin décembre daanaka ba fin février rek gis nga Chine nam ca meloon yéeme na ñu defee ne fa lay yem mu yokk di yokku di yokku ba dugg Italie ba dugg France ba gis nga tey Sénégal ni mu demee ndax Sénégal boo xoolee 2 mars la commencé woon ñu am deux benn cas tey jii bi ñuy wax yow ci interview bi am nañu 47 cas kon mbir mi bu doon benn mun ci multiplier nañ ko par 20 kon xam nga jàngoro ji moom doxam umbatul kenn mais li ci gën a doy waar mooy moom ci boppam dafay impacté ci wàllu koom-koom loolu sax mooy suñu waxtaan bi ndax médecin ñoom xam nañu nan lañ koy nan lañ koy lijjantee mais ñun wàllu liggéey wàllu yi muy ñiy fay liggéey di feeku weer ak ñi nga xam dañuy jël seen alal dugal ko ci entreprise di liggéey pour am dara di yore euh, réew mi lu yore réew mi dafay impacté ci seen liggéey. waaw mais euh, Modibo est-ce que tey par exemple tey Chine. Mm-hmm. Euh, ni mu nekkee réew moo xamante ne mu am doole la bëri na ay réew ci àdduna bi marchandise yi yi nga xamante ni moo fay dox. Chine lañ koy jëlee est-ce que boo Chine amee jafe-jafe ci mbiru économie ndax jàppoo ne dina laal yenn réew yi rawatina Sénégal. mais loolu dafa gaaw Chine mooy usine àdduna bi ma la jox benn cas simple bés bu nekk àdduna euh, bi dinañu lakk pour defar courant defar ay ndox ak defar énergie dañu lakk téeméeri téeméeri junni bërigoy pétrole bés bu nekk cent mille barils par jour la àdduna bi di consommer par bés Chine rek moom rek. mi ngi consommé diggante quinze ba vingt pour cent loolu ñoom dañu leen jël entre quinze millions et vingt millions de barils jour kon usine euh, Chine mooy usine àdduna bi tey jii amul lépp dara looy laal ci suñu réew yi ak réew tubaab yi loo xam ne chinois yi amuñu ci luñ ci liggéey loolu yàlla moon ko defal ak liggéey liggéey bu gaaw bu ñu liggéey donc lépp lu laal Chine rek day laal adduna bi gis nga loolu bi mu amee décembre baril pétrole boo xoolee mi ngi ci presque 65 dollars tey jii mi ngi ci 27 dollars parce pétrole pour doxal seen économie ndax talatuñ ko feebar bee tax bu xësee am rek baril pétrole bi lay wàcc kon conséquence su euh, problème mu Chine ci àdduna moom dafa gaaw moom Chine bu amee problème rek li naan Chine bu sëqatee rek àdduna bi soj loolu mooy dëgg te feeñ na waaw. jërëjëf euh, ba Diop euh, jàngoro ji nag xam nga jóge na Chine dem fu baree bari ci àdduna bi mm-hmm. yow bi nga njëkkee dégg ñu ne Sénégal am na benn cas. Euh, lan moo nekkoon sa réaction ak sa xalaat. waaw ñun ñun ñun euh, si ñu gis-gis ñun parce que tamit ci biir patronat bi dañuy am ay spécialistes ñoo xam ne am nañu ay médecins yow dañuy entreprise yor ay clinique am na ñoo xam ne sax euh, dañ ci jëm ci kanam am na lu ñu jot def ci biir gouvernement ci wàll googu xamoon nañ ci seen xam-xam ñooñu ne mbir mi dina ñëw ji fii kañ kay lay ñëw moo ñu jaaxaloon mais dina ñëw ndaxte luy wàllee di jóge ci ay réew dem ci ay réew te ñun suñu sénégalais yëpp nekk bitim réew ñun ni ñu yore ci immigré ci Sénégal dafa bari. ñi ngi naan 1 million 5 am na sax ñu naan 1 million 1 million 5 en tout cas bari bari boo xam ne amoo réew mooy teg sa tànk ci àdduna bi doo fekk Sénégal loolu mooy wane ne sénégalais ay jàmbaar lañu ay liggéeykat lañu ñeme nañu coono kon eh, ci comme luy wàlle la te suñu mbokk yaa ngi ci bitim réew ñun jàppoon nañ ne kañ lay ñëw moo ñuy jaaxal mais dina ñëw Sénégal boobu tamit am na disposition ak xalaat yoo xam ne ñun jëloon nañ ko wax ko gouvernement bi aussi xamoon nañu loolu. ba mu yëg see Italie nag semaine bële daa <laughs> kon mbir mi moom li ñu doon xalaat am na parce que Italie moom lu fa dugg yëg si na Sénégal ndax gis nga on a entre cent mille à cent cinquante mille sénégalais ci biir Italie rek loolu la statistiques yi wax. France noonu feneen noonu feneen noonu. kon xamoon nañ ne eh, dina ñëw il faut ñu ni jël seen disposition nag pour bu ñëwee mu nekk loo xam ne du yàq réew mi eh, dina néew lu muy lu muy lu muy indi ci ay conséquences ci nit ñi ak ci économie bi. jërëjëf euh, Modibo Diop kon yéen euh, yéen ñi nga xamante ni tey yéen a nekk ci secteur privé bi comme ni nga ko waxee am ngeen ay experts ñoo xamante ni tey ci domaine bu nekk euh, am nañu si xam-xam mais danañu ñëw ci loolu. mais fi mu nii li nga xamante ni bëgg nañ see wax mooy yow cas yi ni nga xamante ni moom lay yokkee nii mm-hmm. te ñu gis ne réew yépp nag par benn la commencé li yéeg. yow nga gis ne chaque jour presque ñoom ngi wax ne cas yi mu ngi yokk lan nga xalaat ne moom lañu war a jël que ne matukaay. waaw boo xoolee tey deux cent mille personnes ñoo feebar ci àdduna bi doo am juróom huit mille am juróom-ñetti junni faatu nañ ci. Sénégal li ma la waxoon tout quarante deux cas la ñu commencé woon presque un cas il y a trois semaines ñu ngi ci quarante sept alhamdulilah kenn faatoo ko ci te am na ñuy wér mesure yi moom mooy dakkal mbooloo yi moom la wax confinement. comme ni chinois yi def boo seetloo ba mu kàmbalee Chine rek la ñu tëj province Wuhan kenn duggatul kon génn ko loolu lu metti la dëgg la Sénégal du Chine mais mesure yi moom d'accord médecin yëpp d'accord nañ ci àdduna par OMS que comme luy wàlle la contact yi moom na wàññeeku déplacement yi na wàññeeku yaa ngis lépp loo xam ne day dajale mbooloo na wàññeeku mais xam nga loolu day xaw a jafe suñu réew mm-hmm. ndax tamit ñun réew jullit lañu d'accord mais mais mais mesures yi mu jël ci école bi. ak ci euh, li nga xamante ne tey moom mooy sunu frontières yi. jaww jeeg géej géeg euh, jéeri ji. loolu lépp mu jël mu nekk ay ay ay décision beneen bi tamit rassemblement yi beneen bi tamit 4 avril bi euh, décision yooyu yëpp yow ndax jàpp nga tamit ne décision yoo xamante ni dañ koo yeex a jël wala dañ koo teel a jël wala moment bi ko jël jàpp nga ne lu baax la. waaw loolu jàpp naa ne décision yi dañ ko dañ ko waroon jël bu yàgg mais xam nga tamit nekkul lu yomb. parce que tey boo ñun ay jullit lañu boo nee kenn du dem ci daje jullit yi comme Touba wala Tivaouane faw nga wax ak kilifa kilifa yi nekk kilifa yi fa nekk parce Sénégal aussi noonu la bindoo fii du France du Amérique fii Sénégal dañu am ay réalité am ay këru diine am yu leen yàlla may ci mbooloo am leen yàlla may ci ci daraja mënuloo liggéey tamit wax ak ñoom mais nag xam naa waxtaani gouvernement bi am ak ñëpp. dem nañu ba tëj aéroport yi léegi aéroport yëpp tëj nañ leen. Mm-hmm. dem nañu am na gàmmu yeeg màggal yi ci bari bàyyi nañ ko dem nañu sax bu julli àjjuma gis nga ni mu demee. tëj école yi. école yi nañ ko mais loolu dama yaakaar provisoire la war a doon parce que loolu rek mooy mën a tax yenn mesures yi ñuy jël ba wàllante bi wàññeeku. est-ce que ñu jëm ci confinement. waaw ragal naa nag ni ma gisee mbir yi di doxe nii. Mm-hmm. bu yàggee fa lañ jëm. parce que tamit euh, gis nañ ne réew yi nga xam ne confinement am na fa. feebar bi taxaw na mais nag ñun ba tey damay wax ñun ay jullit lañu dañuy boole topp li docteur yi wax di ko def waaye nag boole ci di di ñaan parce que tamit ñun jullit lañu ñun duñu ay tubaab donc gouvernement bi aussi mu ngi bàyyi xel loolu ne nañu respecté règles médicales yi nañ ko dugal ci xelu doomu xaalam yi xam ne affaire bi du gént réalité la mais nañuy famet di am si disposition yi ci biir daje yenn ndaje yi xam mënta ñàkk. ñuy am ay mesures médical mais nag ñu ñàkk di ñaan ndax loolu mooy suñu arme. d'accord mais est-ce que gis nga ne Sénégal am na jumtukaay yi côté euh, médecins yeeg seen moyens yi. waaw am na am na ay ay lu commencé am bi feebar bi di ñëw euh, gis nga euh, am na ay mesures yu état bi jël njëkk nañu créé benn fonds un milliard quatre pour mën a pour mën a song feebar bi ay réew tamit comme Chine ñu ngi dimbali ci wàllu équipement loolu gis nga ko ñun ñëpp ñu koy gis. te gis nga tey ñun ndaje yi ñu am ak secteur privé ak ministère fan yëpp ñu ngi daje ak ministère de l' économie d' ot ñu ngi daje ak ministre du commerce ci waxtaan moom ci lañ lañ war a def mais gis nga tamit secteur privé ñoom ñu ngi ñëw indi seen alal pour jàpp. kon Sénégal peut-être doole ji bariwul mais plus muy dem solidarité bi di taxaw doole di am. d'accord waaw doole di am. d'accord euh, Modibo Diop dinañ ci dëkk ci secteur privé bi mm-hmm. léegi euh, communication bi gouvernement bi di def. Mm-hmm. ci ci ci ci jàngoro ji. Mm-hmm. ndax jàpp nga ne communication boobu lu ñu war a yokk la wala jàpp nga ne jamono ji euh, amagut faay. non nañ nañ ko yokk nañ ko yokk parce que gis naa ministère de la santé chaque semaine ñu def bilan wala saa yu problème amee mais nañ ko yokk gën ko jëmale ci xale yi gën ko jëmale ci góor ñi gën ko jëmale ci jigéen ñi. et surtout ñu bañ a tiital nit ñi. Hmm. parce que aussi xam nga ne lu mel nii nit ñi bu ñu tiitee. mën nañu jàpp ne ceeb day manqué diwlin day manqué nangam day manqué ñu daw di jëndeek yooyu te loolu mooy premier problème mu euh, pandémie parce que boo bu bu panique amee rek euh, day commencé am rétention de so commerçant yi mën na ñoo xam ne mën nañu am xel ne nañ naa denc sama sama li ma am bu ma ko jaayee ëllëg ma jaay ko gën a cher loolu aussi waxtaan yi ñu waxtaan diggante gouvernement bi ay ay ay suñu ay organisation comme UNACOIS yëpp muy yeesal jàppook yooyu yëpp ñu ngi waxtaan ak seeni nit pour que kenn bañ a def loolu. Euh, jërëjëf euh, Modibo Diop mbokk yi moom ngeen di déglu moom la ñu invité tey ci seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h tey nag li ñuy waxtaanee mooy mbirum coronavirus ak euh, économie mais sànq wax nañ lu jëm ci wàllum confinement bi ma la wax sànq maanaam comme li nga wax ne moo amoon Chine am France am Italie mais est-ce que tey tey par tey ki dëkk Chine. kooku amaana tey boo nekkoon bul génn sa kër même bu liggéeyiwul yor na xaalis boo xamante ni wala fi mu toll ci mbiru alalam mën naa toog ay weer te du liggéey am lu mu lekk mais Sénégal nii mu bindoo est-ce que bu ñu waxoon bu kenn génn tëj marché yi tëj garage yi ndax bëri na ñoo xamante ni dañuy liggéey ba 10 heure doo ko mën a joxe dépense am na ñoo xam ne li ñu leen di fay weer buñ sa fay seeni bor presque mu jeex ndax bu boobaa solution ban lan lan lan moo nekk solution bi. waaw moom si ka loolu moo tax ñu nit ñëpp ragal ko parce que tey ñëpp xam nañu Sénégal boo xoolee enquêtes yi quatre cent mille ay këru liggéeykat kaay moo am quatre cent mille yi ci la société yu mag yi nekk ci la société yu ndaw nekk ci la tailleur yi nekk ci la mécanicien yi nekk ci la ci la ci la ci la soudeur yi nekk te ñoo ñëpp xam nga ne informel lañu seen amuñu loo xam ne dañ koy jël denc ko mais dañuy liggéey bés par bés di joxe dépense mm-hmm. kon booy tëj il faut nga bàyyi xel ñooñu te ñooñu tey ñooy quatre vingt pour cent du tissu économique. Mm-hmm. ñoo bokk ci société ci ci ci structure yu bari. Mm-hmm. kon booy confiné il faut nga bàyyi xel loolu. Mm-hmm. bon ñun ndaje yi ñu mujj a ak ministre de l'économie tey ci suba ci àjjuma ji rek daje nañu presque pendant presque ñaari waxtu ak moom indi nañu suñu xalaat ci loolu. nañ suñu xalaat xam nañ leen ne loolu bu ñu ko defee il faut ñu bàyyi xel nit ñu néew doole ñi nga xam ne ak ñi xam ne sax am nañu dara. ñoo xam ne ñu ngi ci biir liggéeyukaay yi te amuñu doole denc alal yoo xam ne dina leen may dootuñu mën a demati fenn bon gouvernement bi nag nee na ci biir loolu moom dina créer na benn fonds de contingence boo xam ne mat na 64 milliards loolu gouvernement wax ci suba fonds de contingence bi ñaar lay jëriñ bu njëkk bi mooy euh, euh, defar ay hôpital jënd ay matériel jëmale ko ci ci ci ci feebar bi ñaareel bi mooy euh, ñi nga xam ne am nañu ay jafe-jafe ci ménage yi comme ay liggéey ñu leen jàppale am na it beneen fonds boo xam ne fonds de riposte la bu ñu naan force Covid 19 boo xam ne tamit gouvernement bi créé waat na ko fonds de solidarité boo xam ne moom dañ ci dugal alam la secteur privé dañu dugal alalam suñu partenaire def la nañu dugal alam pour mën a jàppale entreprise yi jàppale nit ñi liggéey ci problème boobu nga xam ne ñun ñëpp ñu ngi koy ragal bu confinement amee. Hmm. parce que ñëpp xam nañu réew mu néew doole lañu. li jiit confinement chinois mun peut-être jiguñu. waaw léegi confinement tey su amoon. Mhm. est-ce que jàppoo ne euh, état war naa mën a subventionné li nga xamante ne day mooy njëg yi ndax nit ki nag su liggéeyewul nga koy jaay saako ceeb vingt mille gën a metti si moom mais est-ce que jàppoo ne confiné bu ñu confiné woon Sénégal yi état warul a gaawee njëg yi. waaw loolu loolu ay waxtaan yu ñu jëloon yu ñu jël ak gouvernement tey ci suba te ñi nga xam ne ñoo représenté organisation syndicale yi. muy employeur yi employé plutôt ñoom it ñu ngi waxtaan a gouvernement bi loolu moom dëgg la du loolu rek am na jëm na ci facture ndox yi facture courant yi ak yooyu yëpp parce que nit bu toogee liggéeyoo tamit il faut nga xool noo koy defee dama lay jox tey ji li gën a li gën a nar a nekk problème Sénégal ci affaire conséquences yi balaa ñu yëg si ci feebar boobu xam naa il faut ñu waxtaan sur le plan économique conséquences yi mooy secteur touristique bi tey jii am na hôtel yu bari am nañu aéroport boo xam ne am presque un million cent mille nit ñu fiy dugg par at ñoom ci tourisme dañuy ñëw li ci ëpp am nañu tourisme rek quarante mille emplois directs ak quatre mille emplois indirects ñooñu tey tey jii tey jii ma wax yow bu ñu aéroport yi bu tëjoo lépp tëju ñoom bu subaa li ñu yore ci ay nit yëpp waratoon dañoo war a taxaw dootuñu liggéey xam nga loolu doy na waar. aéroport yi tëj nañ ko. aéroport tëj nañ ko noonu non tëj nañ ko tourisme laay wax conséquence su tëju aéroport yi. Mm-hmm. tourisme moom conséquence directe la. parce que am na ay sociétés yu mag yoo xam ne Sénégal ko moom comme King Fahd comme fleur de lys comme ay teeru bi ñooñu li ñu liggéeyloo ci nit bari na tey jii boo fa demoon benn nit ñëw fa kooku xam nga il faut mu jël ay mesures waxuma sax moom la muy liggéey daan ko am mais employé yi mu am boo leen defee chômage technique wa boo leen defee licenciement loo leen di état bi di dimbalee ba nga xam ne dañ fi mën a toog toog seen kër yor lu ñu dundee ba crise bi ñëw ba crise bi jeex yooyu yëpp ñu ngi ciy waxtaan li am solo daal mooy. problème yooyu moom ñun gis nañ ko secteur privé bi ndax si ñi nga xam ne ñun la am ñu bokk ci ñun am problème yooyu wax nañu ko ñu wax ko gouvernement bi waaye gouvernement bi te ubbi na ci xelam pour solution mun a am discussion yi ñu am tey yépp tënk na loolu. mu léegi euh, Modibo Diop euh, yéen secteur privé bi euh, maanaam yan proposition ngeen defal gouvernement bu Sénégal. voilà foofu foofu mooy li gën a am importance parce que. ñun daje nañu fan yëpp ñu ngi daje tey la ñu mujj def suñu mujj daje sax ba def nañu benn comité de veille boo xam ne Covid 19 lañ ko tuddee secteur privé bi moo ci bokk ministère BCEAO ak yu mel noonu pour waxtaan. proposé yi gën a am solo ñu defar booy bi ñu demee ba xam ne feebar bii dina laal économie Sénégal bu baax a baax a baax ndax économie àdduna bi rek dina ko laal laal boo xam ne bu doon croissance bi ñuy prévoir deux mille euh, deux mille vingt en Afrique ne 3 pour cent la. da lay wóor na ci biir feebar bi bu jeexul fii ak at mi di jeex croissance bi daanaka cinq pour cent la ñu Sénégal aussi croissance bi na wàcc te xam nga Sénégal depuis presque 2012 croissance mi ngi dox kon day laal réew mi laal bu baax ni mu koy laalee mooy ci wàllu secteur yëpp képp kuy liggéey yore entreprise yore ay nit di am commande ci état bi yore alal di ko dugal ci feneen comme kuy jaay kuy commerce kuy jënd bitim réew di indi dina laal bi moom ñëpp lay laal li ma la wax léegi. tourisme moom laal bu dëgër la leen di laal te du yàgg ndax tout de suite la xam nga bu ñu tëjee ay aéroport bu touriste duggatul ñuy dugg ci tourisme yëpp seen hôtel yi kenn xamul ñu def mais proposition yi voilà fa donc ñun bi ñu demee ba xool loolu yëpp xool aussi li nga xam ne moom la gouvernement bi proposé eh, ñun dañu toog suñu biir waxtaan comme MEDES ñun toog nañu si biir waxtaan tënk ak ñi nga xam ne ñoo bokk ci ñun di ci liggéey am na ñu nekk ci agence de voyage yi am na ñu nekk ay am ay cabinet am na ay sociétés yu liggéey ci état bi am na ay importateur am na ay distributeur de carburant ci biir MEDES ñoom ñëpp dañu bari waxtaan nañu ba ñu indi proposition yu bari bi ci njëkk bokk na ñu wax ne affaire hôtellerie bi moom il faut ñu gouvernement bi gaaw dimbali ñi nga xam ne ñooy ñu am ay hôtel dimbali ñi nga xam ne ñooy agence de voyage parce que am nañ agence de voyage yoo xam ne jaayatuñu billet. nu jàppale leen ci perte de chiffre d'affaires yooyu ñu am. ñu seet nan nañ koy réguler waxtaan na dañ kaw impôt la impôt yi waxtaan nañ ci mais gouvernement bi dafa ne impôt yi kenn mënu ko sursoir loolu la ñu wax tey d'accord tout de suite mhm. am ñu ay mesures yu ñu mën a teg pour teg impôt yi boole ci eh, ñooñu boo gisee muy école privée yi muy hôtel yi eh, muy muy muy ñiy liggéey ci état bi dañuy jëluñu ci ba dañu ay engagement ci banque yi comme par exemple tey boo amee benn contrat cent millions war ko liggéey ak benn société ci état bi da dem lebi yi presque cinquante millions ci banque bi pour liggéey condition yii liggéey bi mën na taxaw parce que nit ñi génnatuñu il faut que ñu wax gouvernement waxtaan ñoom pour que ñu intervenir ci banque yi pour que banques yi def ay moratoire loolu proposition ay proposition secteur privé. Mm-hmm. proposé woon nañu tamit def ay report d'échéance xam nga weer bi di dee 30 mars dañuy fay impôt kuy liggéey rek di nga fay impôt 30 mars weer bi. Mm-hmm. propose nañu gouvernement bi ñu def ay report d'échéance ci impo yi parce que tamit <laughs> ku liggéeyul nan ngay fay impôt nañoo xam te dëgg bu fekkee li fi des ak néew boo ko fayee impôt war yore say salaire yooyu fay liggéey bi dina taxaw loolu ci ay proposition la bokk propose nañu tamit d'un problème macroéconomique comme Sénégal bokk na ci u UEMOA li ñu naan déficit budgétaire bi UEMOA daf ko ak ko encadré lu dépassé 3 ba 4 pour cent Sénégal waxtaan ak BCEAO waxtaan ak UEMOA pour que ñu yokk assiette déficit budgétaire bi parce que li ñu daan nar a am ci alal ci at mi dina wàññeeku donc boo bëggee jël critère de convergence téele ni leen téewoon bu njëkk day indi problème foofu nag gouvernement wax nañu ne ñoom ñu ngi waxtaan ak BCEAO pour xool taux yi seetlu nga ñi nga xam ne dañuy liggéey di dem ci li leb ci ay ay ay mutuelles yi seen yi dafa bari 24 pour cent ñiy def ci banque yi taux yi 7 8 même yenn saa yi ba 15 pour cent hmm. te loolu BCEAO rek moo mën a intervenir pour taux bancaire yoo xam ne moom la ñuy lebee pour liggéey ñu mën ko wàññi ñoom nag wax nañu tey ñu ngi discuter ak BCEAO ñu ngi discuter ak IOMA semaine prochaine nañu wax yan décision la ñu jël mais am nañu yaakaar parce que tey ñu ngi amoon ak association professionnelle des banque euh, ñoo newoon ci biir ndaje mi am nañu yaakaar côté boobu aussi dina am ay ndimbal yoo xam ne ñun li leen proposé gouvernement bi dina dinañu dimbali. Hmm. bon ñi nga xam ne tamit ñi ngi liggéey comme kuy liggéey tey ci secteur touristique suba ñu ne la sa liggéey jeex na proposé nañu ay système pour que chômage technique bi gouvernement bi am lu mu ci jàpp ba nga xam ne kooku di liggéey ci hôtel yi dem toog këram dina mën a am lu mu yor lu ko société am jox mais dina am mën a lu mu am yor ñu tax ñu bañ ko licencier ndax boo ko defoo licenciement ngay def tout de suite hmm. te licenciement yi baaxul tey benn société comme King Fahd bi suñu xarit Racine si moom rek 800 personnes ñu nga fa imagine toi boo leen mënul fay nooy def. waaw mais même bu ma ko bu nekkul ci secteur boobu kese. Mhm. ñi nga xamante ni tey yéen secteur privé bi. Mhm. Euh, ngeen am ay entreprise ay nit di fa liggéeyee. Mhm. mais yéen da ngeen doon am ay publicité di am ay partenaires. mais yéen xaalis boobu yëpp ndax xam nañ ne léegi euh, bëri na ñoo xamante ni seen entreprise yi tey seen i partenaires yi ñoo leen di jàppale wala nangam naa nangam wala li ñuy liggéey. dootuñu gis kuñ ko liggéeyal. Mhm. ndax kenn talatul loolu. Mhm. boobaa bi yéen lan mooy nekk seen rôle seen diggante ak seen employé yi. waaw loolu loolu am na loolu loi bi may ñi liggéey yëpp bu liggéey bi amatul am na loi bi loi bi may ne nga def chômage technique mooy ne la nga def licenciement yooyu yëpp ay ay programme mais li ñu leen wax mooy dafa chômage technique yi am na ñoo xam mënul ñàkk mais bu ñu ko defee au moins. entreprise bi la jël mën na accompagner état bi aussi mën ci boole dara moo tax état bi maa ngi lay wax war def na def na def na fonds solidarité boo xam ne tey jii xam nga ne ñun bi ñu dajalee waxtaan suñu biir UNACOIS MEDES euh, CNES CNP GESAC yooyu yëpp ñun décidé nañu bu ñu cotiser pour joxe un milliard ci fonds boobu. Hmm. loolu Sénégal secteur privé sénégal décidé na def loolu. waxtaan nañ ci tey ba xam naa ne ci kanam sax euh, ñi nga xam ne ñoo ŋànk mouvement yi muy Mbagnick Diop président Beydi Agne président Kama. ak Idi Thiam ñoom ñëpp dañuy dem ci presse bi expliquer ne ñun dañu dañu fexe ba suñu biir liggéey ñu dajale un milliard boobu dimbalee ko gouvernement bi ci biir ci biir fonds yooyu ay cotisation lay doon. deux sax la ñu bëgg mais bu ñu doxee ba ci kanam ñu xoolaat. kon alal jooju ak alal yi bailleur de fonds yi di indi ak alal yi gouvernement bi teg ci taabal ji mooy dimbali nit ñi pour affaire chômage technique yooyu affaire licenciement yooyu ñu mën ko ci régler. noonu lañ ko gisee proposition boobu la ñu def lañ ko gisee. jërëjëf euh, Modibo Diop mbokk yéen ngi déglu rajo réew mi FM euh, Modibo Diop nekk nag ingénieur polytechnicien expert consultant international en énergie o et infrastructure bokk ci euh, mbootaay gi ëmb entreprise yu Sénégal proposition yooyu nga xamante ni tey def ngeen ko gouvernement bu Sénégal léegi su ngeen bu jàngoro ji demoon tey euh, yàlla tere dem ba nga xamante ni toll nañ foofu ci licencié wàññi wàññi ay nit ba nga xamante ni tey dem nañ ba jàngoro ji jeexaat boobaa nan la ñuy defaate rétablir ñëpp ci ci ci mbir yi. waaw loolu nag foofu sax la problème nekk boo gisee nit ñi ñi nga xam ne gis nga jafe-jafe bu ñëwee ñi yàlla may ñu gën a dëgër pour pour pour dékku jafe-jafe yooyu ñooñu ëllëg ñoom ñooy taxaw pour mën a liggéey. loolu nag la ñuy oo ñun gouvernement bi ci oo suñu association yi pour ñu ñu jéem a góorlu ba nga xam ne jafe-jafe bi dañu ànd def solidarité boo xam ne bu yàlla defee mu jeex société bi Sénégal mën continuer dama lay jox benn cas simple euh, am na ñoo xam ne tey jii euh, dañu am ay société di liggéey bâtiment BTP am ay maçon am ay su am ay ferrailleur am ay soudeur am ay coffreur xale yooyu nga xam ne dañu liggéey xam ne loolu rek mooy seen métier Sénégal daf ci am spécialité boo xam ne daanaka mën na jongante ak réew yu mag yi ci wàllu googu société yi liggéey ci état bi ak liggéey ci bi ak ci réew mi di am ay contrat privé ci wàllu boobu buñ leen jàppalewul ñooñu moom liggéey boobu bu ñu demee du sotti ndaxte bu demee ba amatuloo ay coffreur amatuloo ay maso amatuloo ay ferrailleur bâtiment bi day sooxe loolu premier problème donc ñi nga xam ne ñooy gën a mën a góorlu ba ñu téye jàngoro ji téye problème yi ba nga xam ne société bi euh, société yi li ñu am ci ci capital immatériel ci xam-xam du tasaaroo ñu ëllëg bu crise bi jeexee ñooñu ñooy gën a mën a taxaw pour liggéey te loolu boo seetloo chinois yi ñoom loolu lañu ñu a gis loolu lañu ñu teel a gis moo tax ñu jël ay mesures ne ñu ngi góor góorlu di liggéey dañu fexe ba jàngoro gi mucc ci mais buñ ci génnee ëllëg. ñoom seen société yi du ñu du ñu du ñu du ñu tasaaroo ci wàllu liggéey ba nga xam ne dañu mën a taxawaat tuggaat ci àdduna bi di liggéey ñun aussi bu nañu bàyyi xel loolu. Mhm. bu ñu ne rek feebar am na am na naa nga xam nga rek. mais mais bu ñu leen gisee yéen secteur privé bi ngeen nekk euh, ñoo xamante ni tey euh, am ngeen solo ci réew mi suñu gisee rek ngeen jekk-jekk gaaw génne euh, un mil un milliard. xalaate génne waat beneen beneen beneen clinique cinquante lii ak dix lii show mais yooyu. est-ce que yéen euh, amut leneen loo xamante ni tey dañ koo njort problème bi mala jàngoro ji àgg foofu ci Sénégal. no euh, cest ñun amuñu ci am ñun amuñu ci xam-xam am nañu ay médecins suñu biir yu ñu naan ne mbir mi bon mi ngi nii ñu ngi def ay analyse pour xam fu muy yem ak nu ko yaakaare mais dafa nekk ci rôle boo nee ci réew li fa liggéey dafa nekk sa rol bu dara duggee ci réew mi ci problème bu doon sax ñaari piscine nga dugal ko ci réew mi. tey ci suba man bi ñuy waxtaan ak ministre bi rek ministre euh, de ministre bi nga xam ne moo yore affaire économie Sénégal. Amadou ot am na suñu collègue secteur privé marocain ci heure bi ñuy wax ñu génne un ñu génne un milliard ñoom jox nañu roi du Maroc six cent cinquante cinq milliards. Mhm. tey ci suba kon dafa nekk élan boo xam ne élan mondial la mais lii Maroc du Sénégal moo tax may dellusiwaat ci benn point bu am importance. état Sénégal war nañu gën a góorgóorlu. ci secteur privé pour dooleel seen secteur privé national. Mhm. wax naa ko fu nekk bind naa ci xeex naa ci ndax tey jàngoro ji bu amee ñun rek ñooy mën a dimbali suñu réew. Mhm. tubaab bi ñuy jox liggéey yi ak ñeneen ñeeg ñeneen seen réew la ñuy dimbali ji. Mhm. loolu wax naa ko tey jii rek fàttaliwaat nañ ko ministre bi. ne ko lii nañ ci jànge loolu benn nañ ci jànge ñaar bu ñu génnee ci lii. nañu fexe ba li ñuy am ci ci ci ci li ñuy dundee sénégalais yi muy ceeb muy diwlin muy ay tamaate muy oignon muy jóge suñu réew. Hmm. parce que importation yi bu bloqué problème lay doon. Hmm. am réew mënta dund ci loo xam ne bitim réew rek lay jógee à 100 pour cent. Hmm. donc ñaari jàngat yi ñun wax nañ ko ministre bi te wax nañ ko gouvernement bi tam wax yàgg nañ ko wax man mii yàgg naa ko wax Mansour Kama yàgg na ko wax Mbagnick yàgg na ko wax euh, Beydi Agne yàgg na ko wax mooy nañu fexe dooleel. si ñu ñi nga xam ne ñu yore société yi Sénégal di liggéey bu ñu leen xeeb ndaxte lii wane na ko bu fekkee ne marché bu jóg dem bitim réew marché bu jóg ab naar jël ko ak keneen ak keneen lii mooy coow li bu problème añee doo am ku am doole ku la taxaw te Sénégal wax nañ leen ko tey tam jàpp nañ ci loolu ak deuxième point bii ma la wax mooy ñu ñu fexe ba nga xam ne tamit ci wàllu liggéey yi ñuy bàyyi xel sénégalais yi bu baax a baax a baax a baax te ci wàllu liggéey tamit ëllëg li ñuy jëlee li ñuy dundee muy ceeb muy diwlin muy suukar li ci ëpp suukar sax amul problème ñu koy jëlee suñu réew. loolu nag moo indi problème industrialisation mm-hmm. par exemple mooy tey nga mën a jël mango yi transformé ko Sénégal mm-hmm. mooy nga gën mën a jël par exemple liy jóge ëllëg ci pétrole bi mm-hmm. transformé ko Sénégal parce que pétrole mën na génne loo xam ne. Euh, plastique yi ci lay génne. d'accord léegi euh, jàngat bi léegi nag bu lépp paasee. Mm-hmm. Euh, yéen secteur privé bi. Mm-hmm. yéen yéen nga wax ne état war na mën a dooleel secteur privé bi. mais yéen tim mm-hmm. wane ngeen seen xarañteef peut-être. mais ban jàngat la si état bi def. ak yéen tim yéen secteur privé it ban jàngat ngeen ci def. waaw xam nga xam nga Sénégal boo nee secteur privé rek xam nga Sénégal benn affaire laa ci seetlu nit ñi. bëgguñu ko am alal loolu xam nga yow si set seetlu nga loolu. Mhm. ku am alal rek dañuy commencé am position ak yow mais ku liggéey ba am alal mais kooku c'est normal. moo tax fan yii avant dégg naa ñu leen di interpeller. waaw ku nga xam da liggéey tey jii toog sa biro am sa xalaat xalaat xam nga tey ñaar mooy liggéey économie du savoir xalaat ak doole. Mhm. xalaat mooy nga mën a toog fii ji yow rek ji sa bopp nga xalaat idée boo xam ne mën nga ci jëlee alal bu dul jeex Bill Gates <laughs> noonu la def ba monté ba monté li mu monté. Mm-hmm. tey Facebook ki ko monté <laughs> xalaat ci kaw xalaat la taxaw. Mm-hmm. mooy l'économie du savoir. Mm-hmm. fa la ak de la connaissance loolu moo ëppati doole léegi sax matière première. ak doole. donc mais dama seetlu ne Sénégal ma daal loolu jaaxal na ma wax jaaxal na ma nit ñi duñu comprendre que nit liggéey na ba am dara. doon tax il faut ñu changer mentalité yooyu am réew bu amul ñu am doole ñuy liggéey bu ñëpp maasee du sotti du sotti il faut am ñu liggéey am doole di jàppale ay emploi di jàppale ñeneen yi ndax ñun dañu lu ñu am dañ koy bokk kon esprit il faut mu changer kon sama gis-gis mooy crise bi ñu jàng ci loolu buñ ci génnee ñu mën a dooleel secteur privé sénégalais ndax boo leen dooleelee alalu réew mi dina des ci réew mi di ci ëpp ba pare emploi dina bari ndax état bi mënatul di jël ay emploi état nekkul fii pour jël ay nit loolu mënatul nekk. Mm-hmm. léegi ñi nga xam ne ñooy jàngi liggéey am xam-xam dem bitim dem fii ñooy monter ay société pour mën a jël ay emploi dimbali nit ñu liggéey te loolu ci xalaat rek ak pexe lay nekk. Mm-hmm. mais mais damaa dégg euh, ñi nga xamante ni tey ñooy commerçant yi. ñoom xayma nañ ko ne deux mois quinze jours boo dee xool liñ yor si ceeb loolu la mën a loolu la mën a loolu la mën a maanaam mat. Euh, loolu tamit ndax euh, amoo ci benn tiitaange. non loolu man am na réunion bu ñu def ak ministre du commerce euh, ak ministre du commerce ak ministre des PME boo xam ne rassurer nañu boobu waa UNACOIS ñoo fa nekkoon yeesal jàppoo ak importateurs yi ñoom assuré nañu nit ñi am nañu stock bu doy. Mm-hmm. boo xam ne mu ngi ci réew mi ci ceeb ci diwlin ci oignon bi fiy jóge ak stock boo xam ne aussi importé woon ko mi ngi ñëw. loolu moom rassuré nañu côté boobu mais nag loolu aussi lu ñu rassuré rassuré rassuré wax nañu leen ne ñun secteur privé bi il faut ñu góorgóorlu ci ñu bokk ak ñun jaaykati bitig yeeg ñiy jaay ceeb bi ñu bañ spéculer parce que saaku ceeb tey supposons am na booy xam ne buy jaar treize mille cinq cent bu fekkee da ko bëgg a jaay ko vingt six mille yaa ngi yàq liggéey bi loolu nag xam nga nag ku nekk ak sa li ngay doxale mais ci biir euh, distributeur ñi waxtaan nañ ci loolu ba wax nañ ne nag bu ñu spéculer ci suukar bi bu ñu expliqué ci ceeb bi bu ñu expliqué ci oignon yi parce que loolu boo xasee def rek stock yi ñuy wax ni donte am na day indi problème. mais état jël si ci mesure. waaye état nag wax nañ leen ko ñoom nag xam naa ne ñu am seen mesure bopp parce que tey jii euh, ni ñuy amee mesure ku dugg ci réew mi am feebar bi ñi nga dëkkal mën la wax ne waral dem ñu xool la defe naa côté boobu aussi en temps de crise il faut que nit ñi bu ñëwee ci koñ ñi gis ne boutique bi mi ngi jaay ca saako ceeb lu daganul. wala mu ngi yore saako ceeb nëbb ko di ko jaay jaay boo xam ne baaxul ñu mën ko am fu ñu ko wax fu ñu ko fu ñu ko boolee ñoo ñu ñëw tegaat ko ci yoon loolu nag def nañ suñu wàll nee nañu daal bu ñu spéculer bon distributeurs yi bokk ci ñun ñëpp nee nañ duñ ko def mais nag mbir mi di dox it ma gën a avancé ba mais li ma li may jàpp dëgg-dëgg mooy sénégalais bu ñu tiit parce que panique bu amee rek bu baax gis nga boo gisee Europe dañu paniqué ñu bari Espagne ñu ngi daw di rafle supermarché yi loolu bu xësee am rek. foofu la problème bi di nekk nit ñi bu ñu tiit nañu doyloo yàlla xam ne natt bu yegg si ci ñun la. maanaam bu ñu tiitee. ñi nga xamante ni euh, xam nga tey bëri na sénégalais yoo xamante ni tey ñu ëpp ci askan bi. Mm-hmm. yoruñu xaalis boo xam ne. sur place mm-hmm. mën nañ koo jëndee li ñu soxla. ci dund denc ko kon ñeneen ñi tamit mën nañ koo jënd ñi nga xamante ni ñoo xaw a am jënd ko denc ko te bu waree ñeneen ñi dañu problème. mooy li ma la wax bu ñu spéculer bu ñu spéculer cest à tey. Euh, ku nekk na nga jënd li nga tollool te xam ne am yaakaar ne mbir mi du jeex. mais gis naa ne état daf si xaw a wan nag ak nooy tuuti ci mbir moomu. waaw ñun wax nañ leen li ñu xam mais xam nga dafa doole boo xam ne force publique la ñun yoruñu ko ñun dañu liggéey rek wax ak ñi war a liggéeyal ne leen def leen nii def leen nii moytu leen di moytu leen di boo gisee UNACOIS ko UNACOIS jàppoo ñoom ñëpp waxtaan nañu ñoom Idi Thiam ak président se pour que loolu bañ am mais na xam nga aussi euh, commerçant yi yëpp euh, peut-être tënkuñu si ndigal boobu mais daal man su ma gis-gis bu gàtt mooy nit ñi bu ñu paniqué paniqué di tiit di daw di jënd di denc denc bopp bi nit ñi bu ñu paniqué aussi di spéculer nit ñi aussi bu ñu yàpp bu ñu jàpp ne euh, lépp jeex na dara fi amati yaakaar naa période de crise bu gàtt lay doon sama gis-gisu boppam ah, aw ma ci xam-xamu baatin aw ma ci xam-xamu médecin parce que du ma médecin mais euh, crise bi am nañu yaakaar ne euh, crise bu gàtt lay doon d'autant plus que fan yii yëpp yaa ngi gis am na ay vaccin yoo xam ne mi commencé génn. Mm. bon américains yi wax nañ benn vaccin Sanofi en France wax na benn vaccin Fujifilm en au Japon wax na vaccin boo xam ne Fujifilm bu bu bu Chine moo koy développé euh, amee anglais kii tamit nu mu tuddati allemand yi aussi wax nañu benn vaccin donc ñu yaakaar ne euh, peut-être feebar bi am na mesure yi ñu ngi koy jël mais bés bu benn vaccin génnoon ci euh, diir bu gaaw ñu ngi koy ñaan suñu borom. mbir mi dina fa doxe tab tabi ah, géej ah. waaw jërëjëf euh, Modibo Diop mbokk yéen a ngi déglu réew mi FM léegi nag bala ñuy dikk ci conséquences yi mbirum économie mais mbirum mondialisation nit ñi ñoo ngi ko ci faral di dudd mbirum jaayante doole mbirum rawante lan moo ci saxalaat ci àdduna bi waaw ah, xam nga économie économie àdduna moom dafa mondialisé léegi ndaxte la preuve <laughs> lu xew Chine matul sax weer yegg si na Sénégal kon léegi àdduna bi yëpp benn benn benn dëkk la gis nga tey jii ak xarala technologie bu bees yi ñu naan xarala yi euh, lii xew ci àdduna bi sa portable nga yore léegi gis ko tout de suite. bu njëkk mais est-ce que jaayante xam nga nag loolu am na xam nga yaa toujours li li le professeur Samir Amin ak ak Maguette Diouf daan wax échange inégal mooy aussi am na fu ñu réew yu ñu weex yi xaw a noggatoo réew yu néew doole mooy dama koy wax toujours. mooy jël suñu alal yi suñu matière première yi muy arachide bi muy kafe bi muy cacao même muy pétrole bi di ko yóbbu seen ay réew di ko tëggaat bi ñu ko jaxee ko jaayee xam nga loolu échange inégal la. Mm-hmm. nekk na aussi benn problème boo xam ne mondialisation moo ko indi. Mm-hmm. Euh, soppi ko dina jafe mais peut-être occasion crise bi dina tax suñu économie africaine yi muy Sénégal muy feneen mën a góor góorlu ba ñun suñu bagage yooyu. ñu am noo xam ne. Mm-hmm. dañ ko koy soppee suñu réew. di ko jëfandikoo wala di ko jaay bitim réew. loolu tamit ngànnaay bu am solo lay doon. waaw mais euh, diggante Chine Amérique. waaw Italie France noo ko gisee. ci wàllu. si gis nañ ne euh, Chine. tey nekk nañ ci xeex bi. am na lu ñu si jot a réussir. Mhm. gis nañ ñoo ngi dem di jàppale yeneen réew bu si mel Sénégal ak ay Italie. Chine moom wane nañu seen doole. seen doole. te feebar boobu fu mu duggoon fu dul Chine ca tàmbali ba. Mhm. kon ay ay ay ay centaine de milliers de morts ngay dégg. dañ ko ba am ci ex expérience bu am solo boo xam ne. moom lañ dem di wane bitim réew parce que bul fàtte Chine ak États-Unis dañ nekk compétition bu rëy. Donald Trump li mu def eh, ak ñaari at yëpp mooy fu ko Chine tane ci wàllu ci wàllu wërsëg ak prix mu yokkaat ay taxam yokkaat ay impôts pour que Chine néew doole États-Unis ndax Chine tey jii dañuy wax États-Unis rek mais sur le plan économique Chine mooy première puissance mondiale. Mm-hmm. Amérique yi ñoom première puissance mondiale lañu sur le plan militaire et stratégique. Mm-hmm. mais ci économie. Mm-hmm. Chine moo ko dominé ci àdduna. après après jàngoro ji jàpp ne Amérique dina tolloo yaakaar naa nag li ma gis suma gis-gis bu gàtt Chine ni ñu commencé dem dimbali ji France dimbali Italie commencé dimbali Sénégal ak yeneen dëkk yi. ñoom ñu ngi wane seen bopp. seen doole ñu ngi wane seen doole. def communication. waaw ñoom fi mu nekk nii. est-ce que communication la def. communication la ñuy pour wane ne ñoom non seulement téye ñu jàngoro ji. mais am nañu doole continuer liggéey parce que ñoom aussi li leen may chance mooy tey réserve bi ñu yore dans le monde Chine boo demee ci trésor public américain dix bons du trésor yoo gis trois yi chinois yi ñoo ko jënd téye ko mm-hmm. boo demee en Europe noonu la demee dañuy am ay réserve mondiale yoo xam ne ci alal dafa yéeme te ñoom dañ ko liggéey ci ñaar fukki at yi ñeent fukki at yi dañ ko yéeme foofu laay dellusi ci Sénégal bu njëkk. fàtte nga bu ñu njëkk bu ñu la nee baaxul lu ñu lay wax chinois la. Mhm. fàtte nga loolu. Ah, ah. loolu amul ñaar fukki at mais bañ ko naan def chinois dañu gëm seen bopp ne lii waa chinois baax waaye man ma jënd chinois bu baaxul man mi ne chinois moo ma ma jënd américain bu baaxul nii la ñu doxalee seen réew ñun Sénégal bëgguñu lekk suñu ceeb ceeb bi ñuy béy fu ñu ko teg bëgguñu lekk suñu oignon bi ñuy béy fu ñu ko teg teguñu ko fenn da ngay jël liy jóge sa réew. mu tane mu baax mu bon nga jàpp ji di ko jëfandikoo ba loolu am qualité parce que du tëb rek sotti man bi may commencé liggéey dans les années quatre-vingt-cinq ceebu mbéy mi boobu maa ngi nekk groupe bu ñu naan CFAO Sénégal yëpp xam nañ ko di jaay ay machine agricole ay machine yoo xam ne ñooy ñooy décortiquer ceeb bi ceebu mbéy mii quatre-vingt-quatre foo ko mës indi ñu ñu génne ko sànni ci biti jox ko xar yi xar yi sax ko mais léegi ceebu mbéy mi baax na. donc nit ñi nañuy dundee di jóge suñu réew pourquoi ñuy dem di jënd oño bu jóge bitim réew amul sens am na oignon ñu ngi koy bay Sénégal lañ koy jëfandikoo pour pourquoi ñu bëgg a jënd ay tissu yu jóge bitim réew nañu jënd tissu yu jóge suñu réew. d'accord yooyu yëpp ay réflexe la yoo xam ne ji dafa am solo la moo tax mu ci insister. Mm-hmm. boo gisee ñu développé seen réew. Mm-hmm. dañu gëmoon seen réew. ñu nag nañu waxante dëgg mooy li ma wax léegi ci wàllu alal sénégalais il faut ñu gëm seen réew boo gëmee sa réew. da ngay mm-hmm. da gëm néew dooleem. ak taneem gëm ne ci biir néew doole googu la doole gi te mën a taxaw ëllëg mm-hmm. loolu nag manqué nañu de mm-hmm. manqué nañu trop trop trop trop da ngay xool nit day na ci rajo yi di wax kilifa bu ñëpp di tudd mu naan la man man dégguma olof sax tubaab laa dégg mata di googu mooy lan yow nga nàmp olof jàng ci ay école Sénégal nga dem France ñaari fan na déggatoo olof tubaab nga dégg loolu mata la donc il faut loolu ñàkk gëm si suñu réew la il faut ñu góorgóorlu ci gëm suñu réew góor góorgóorlu ci civisme mooy civisme bu ñu waxee nañ def nàngam ñëpp bokk ko def. Mm-hmm. parce que gis nga fan yi ndigal lañ fi joxe yëpp indi na fi coow. Mm-hmm. mais il faut ñu góor góorgóorlu ci loolu c'est vrai Sénégal réewu diine la mais kilifa diine bu ñu jubboog ñi xam ne ñoom ñoo yore réew mi jubboog secteur privé bi te loolu mën na am ndax ñun ñëpp benn nañu ci biir waxtaan loolu rek la ñu góor góorgóorlu gëm suñu réew. d'accord waaw léegi euh, lu jëm ba tey ci euh, jàngoroy coronavirus ji. Mm-hmm. ak euh, économie Sénégal. fi mu ne nii yan nga jàpp ne commencé na koo def. wala defagul benn dégâts. non dégâts yi commencé na maa ngi lay wax ni ñu tëjee aéroport yi. tourisme bi mooy premier impact te tourisme bi am na 40 mille personnes yoo xam ne ñu ngi liggéey ci tourisme ñoo xam ne dañuy liggéey ci hôtel direct ak 80 000 yoo xam ne indirect la mooy ñi nga xam ne dañuy jaay. informel la nag. léegi dafa fa laa jëm ñu jaay tourisme bi par exemple ay ay ay ay ay supome ay crevette ak secteur informel bi aussi gis nga ko fi mu jëm. parce que informé bi tey ji ñun boo ñëwee ci commune mel ni Colobane Fass Gueule chinois yi dañu daan jël seen bagage di ko indi centenaire di ko jaay xale di ko jënd di dem ci marché bi di ko jaay di ci am dépense. Hmm. kooku commencé na am ah, problème bato bi doon dem Ziguinchor ñëw indi marchandise. waaw yooyu yëpp ay problème la la indi. donc impact yi moom c'est réel boole ji nag société yu mag yi xam dañu am contrat bu mag ak état bi. di liggéey ak état bi état bi mënatul jël yenn liggéey mais état bi xaalis bi mu leen ameel est-ce que na leen est-ce que loolu dañu leen fay yooyu yëpp ci biir waxtaan yi ñu am ak fonds de solidarité bi ak fonds fonds fonds de contingence bi euh, ñu wax wax nañu ay propositions donc impact moom c'est parce que ren sax jàpp naa ne croissance Sénégal euh, d'après prévision yi ma gis ci ci ci ci ci ci ci yenn organisme comme Union africaine ak yooyu ak ci ministère yi yaakaar naa croissance bi dootul nekk lañ ko jàppoon donc forcément di nga gis fan yi gouvernement bi dajalaat def ay ay ay ay de finance rectificative pour mën a xam ne croissance du demee nii. Ah. ndax impôts yi du war a dugg ni mu war a duggee mille six cent et quelques milliards la ñu prévoir woon ko mën a am. douane bi presque ñu ngi woon ci neuf cent ba mille milliards yu ñu doon xaar yaakaar naa loolu du mën a nekkati kon nag effet bi moom c'est immédiat yaay si na ba pare. Mm-hmm. Euh, wax nga lu am solo Modibo Diop xam nga Sénégal tamit dafa am lu bari loo xamante ni yàlla daf ñu ko jagleel. Mm-hmm. mooy ñun am nañ suuf soo xamante ni suuf su mën a bay la. Mm-hmm. tey su nguur gi def na politique bu am solo ci wàllum mbay mi def politique bu am solo ci wàllum napp gi maanaam xam ne kiy bay dana mën a ko danañ ko mën a transformer def ko leneen ak leneen ki nekk ci géej gi jën yi danañ ko mën a dundee danañ ko mën a transformer def ko leneen ak leneen ñi nga xam ne ñoo nekk ci sàmm gi meew meeg lu mën ne doon maanaam ak mbayum ceemeeg yooyu ndax yow jàpp nga ne tey ñun waroon nañoo mën a toll foo xamante ni nag dans dix ans wala quinze ans dootuñ jëggaani dara bi ci réew loolu moom ñun wax nañ ko ministre bi ci suba ci loolu ci jaar-jaar bu metti bi nga xam ne ci la ñu toll moom rek ngay mën a régler problème yooyu que ñu fexe ba nga xam ne suuf yi dina mën a dañ ko mën a jox ñi nga xam ne ñooy bay dimbali baykat yi dimbali sàmm yi dimbali nappkat yi am na sax effort yu am ah, bu ko bu ko kii bu ko kenn xeebu ko parce que tey maa ngi lay wax man dama ci liggéey ci pêche bi Euh, état bi subventionné moteur de pêche moteur de pêche boo xam ne presque un million deux cent trois cent ngay jar léegi presque deux cent cinquante mille trois cent mille lañ koy jaayee donc état bi mi ngi def mais ñu fexe ba nga xam ne léegi secteur yooyu yëpp dafay jógee dinañ ko mën a dinañ ko mën a transformer localement pour ñu ñu jëfandikoo ko ba pare wàññi importation parce que importation yi moo bari li ñuy li ñuy importé dafa li ñuy dugal ci dëkk bi loo xam ne ñun liggéeyuñ ko moo bari mm-hmm. te loolu taxi yi sax baax na mais buñ buñ ko defaloon suñu bopp mooy gën a di mm-hmm. te loolu euh, loolu bëri na bëri boo xam ne te loolu suñu habitude de consommation yi mm-hmm. par exemple tey jii mais nit ñi euh, bëgguñu jël soble soble soble vallée bi suñuy jabar am na ñoo xam ne nanguñ ko man sama kër ceebu Sénégal lañu laay jënd depuis depuis boobu ba tey mm-hmm. nangutuma jënd ceebu bitim réew. waaw mais mais tey xam nga tey présent ni jën yi. ay jardin yi ñuy defar yeneen ak yeneen. jën yi bu ñu ko nappee. ba lekk si li si presque day yàqu. mbay mi dooleel mbay mi dooleel sàmm gi est-ce que tamit loolu lépp état bi taxaw na ak yéen secteur privé bi ndax taxawal ngeen xalaat ci ay entreprise ndax ay entreprise rek ñoom ñooy liggéey loolu ndax loolu ak ah gis nga ne yéen seen taxawaay ci côté boobu. waaw taxawaay boobu moom am na sax état bi mu def mais dafa des waaye am na joxee kaawu sàmm bi tey boo duggoon tey ci jolof tey la nekk ci liitaru meew ñuy sotti ci dex yi kenn xam lu mu toll. Mm-hmm. xam nga loolu mm-hmm. boo demee am na période boo xam ne dex yi lak yi ci biir jolof mm-hmm. day weex tàll. ndax meew mi nga xam ne moom jógee ci nag yi nag yi day fekk ñu ngi am meew mm-hmm. mais kenn kenn transformé ko kenn indi ko ci circuit de distribution dañ koy mujjee sotti ci dex mm-hmm. ak yeneen bi nga dem tey Casamance di nga période boo xam ne am na jam ko côté Sédhiou yoo xam ne mais dëkk bi ay mango yu nëb la mm-hmm. Casamance bii te boo fekk mango ñu ngi ko soxla bu baax en mën nañ ko mën nañ ko jël transformé ko def ay industrie def ay jus de mangue jus de mangue dafa baax bon après am nit ñoo xam dañ koy jënd di ko exporter à l'étranger c'est vrai am na ay jéego yu am solo yu horticulture bi dox parce que tey ñu ngi ci presque cent dix mille tonnes yu ñuy exporter mais il faut ñu dem transformation te loolu aussi dafa laaj ay ay ay ay ay moyens benn dafa laaj ay disposition hmm. parce que industrie boo koy def il faut nga am courant boo xam ne cherul hmm. parce que tey bu fekkee man dama def usine di transformer ay jus de mangue en jus de mangue bëgg ko jaay bitim réew wala jaay ko Sénégal am koo xam ne Espagne la nekk courant bi muy joree bi muy transformé ndax mu courant moo ëpp solo ci liggéey industrie c'est deux fois plus cher que courant Sénégal su deux fois moins cher que courant Sénégal sama produit bu génnee <laughs> dafay cher kon loolu aussi dafa am lu mu leneen lu mu àndalaat ci wàllu ay jàppandi yoo xam ne nguur gi rek moo ko man boo xam ne dinañu am courant bu mën a moins nañu am fiscalité bu tane impôt lu ñu toll fenn fi et puis aussi salaire yi aussi am lu ñu koy toppatoo ba nga xam ne du nekk loo xam ne day sonal ñuy investir parce que tamit nit ki alalam lay jël di ci dugal. Mm-hmm. bu ci dugalee alalam bu ci gisul boppam day mujj tëj. Mm-hmm. donc bëgg nañu nit ñi bëgg nañu am ay industrie yu baax mais aussi am na ay mesures d'accompagnement yoo xam ne ci wàllu état bi la mooy li ma doon expliquer léegi dina tax li ñuy am ci dëkk bi di ko transformé mu ci ay industrie dina tax njëg gi muy génne mm-hmm. nit ñi nañ ko ànd mais kon euh, Modibo Diop yow si sa gëstu ak li nga ci xam mooy Sénégal fi nii ne yu ñu ceeb boo xam ne euh, Sénégalais yëpp mën nañ cee dund wala xaaj bi sax Euh, pour man sama gis-gis man résultat yi ma am amaguñu autosuffisance alimentaire en riz pour man loolu laa gis. ci biir réew mi ci biir réew mi des na. am na nag jéego bu mag boo xam ne dox nañ ko ci ci juróomi at yi mais pour man autosuffisance autosuffisance bi amagul peut-être parce que am na ay stratégie yoo xam ne gouvernement bi tegoon na ko évaluer guñ ko buñ ko évaluer dañu xam li ci rëq mais aussi ñun ñi nga xam ne ñooy jëfandikoo ceeb nañu xam ne suñu ceeb bi ñuy béy suñu réew. moo ëpp ci ñun njëriñ ceeb bi ñuy jënd bitim réew. léegi mbéyum noor mi. mbéyum noor mi aussi moom nag am na évolution parce que boo xoolee cinq ans yi on est passé presque de mille tonnes exportées à cent vingt mille tonnes presque exportées. Mm. mais exportation bi baax na parce que dina indi ay recettes dina indi dollar dina indi dina indi dina indi euro ci balance de paiement yi. mais nag il faut aussi part de transformation locale bi ñu jox ko importance koo gisee thème Côte d'Ivoire tey cacao Côte d'Ivoire Suisse <laughs> ñu naan la chocolat Suisse Suisse amul chocolat. dañu naan la chocolat suisse moo dàq ci chocolat yi. Mhm. suisse amul chocolat. Mhm. suñu cacao Côte d'Ivoire bi lay jël cacao Côte d'Ivoire c'est le premier producteur de cacao au monde yóbbu ko seen dëkk transformé ko def ko chocolat ñëw jaar la ko di ji mhm. lan la gouvernement bi def dañu fexe ba bu ñuy produire ci cacao 30 pour cent bi ñu koy transformé Côte d'Ivoire te li gënoon sax ñu yegg ci ba 70 pour cent parce que cacao Côte d'Ivoire neex na neex boo xam ne moom la tubaab bi jël di ko transformé dañu jaay boo duggee supermarché baguette de coco ak chocolat ñooy mais loolu jógul seen dëkk. Afrique gii la jógee wala ay Brésil wala Argentine donc bàyyi xel ci transformation industrielle suñu matière première yi ba ci or bi dafa am solo. ba ci or bi. Hmm. léegi euh, waxtu bi léegi tey mu jot hmm. euh, yéen ñi nga xamante ni yéen a nekk ci secteur privé bi. dëgg-dëgg ban taxawaay nag ngeen war a wane ak jàpp nga ne daal yéen jéego yi ngeen xalaat defaat ginnaaw bi ngeen génnee lu toll ci benn milliard ak leneen loo xam ne yéen a koy yéen a ngi koy waaj ak yan réunion tamit yan waxtaan ngeen jàpp ne dañ ko waxtaan ak ministre de bi yor wàllum économie réew mi ak ministre bi ñu dénk wàllum commerce. waaw ñun li ñu génnee ci waxtaan fee bi ñetti tënk yu am solo lañ jàpp bu njëkk bi mooy def nañu fonds de solidarité moom lañ force Covid 19 monté nañ ko. bon euh, et am na benn comité boo xam ne ñu ngi naan comité de croissance et de veille Covid 19 boo xam ne société privée moo ci nekk ministère yi BCAO ñoo xam ne ñoom dañuy li ñuy tënk ci waxtaan ak xalaat mm-hmm. du jaar fenn dañ koy jox directement conseil des ministres conseil des ministres bi exploité ak président mm-hmm. loolu aussi xam nga am na solo. Mm-hmm. parce que souvent ndaje yi dañuy daje ba pare lu ci ëpp fa ñu dogalee ndaje yi dañ fa ñuy tënk ci ndaje yi du fa yegg. mais comité de croissance et de veille bi ñu monté xam ne d'accord nañu monté ko ñu ngi waxtaan suñu biir pour seet ñu ciy bokk ak ñu koy doxale ci wàllu xam-xam ak wàllu gëstu yoo xam ne ay études la ñuy def ay évaluation ay enquêtes pour mën a xam nu ñuy toppatoo économie réew mi ci jafe ñu nekkee ci entreprise yi ne ñoo am ci am jafe-jafe ak secteur informel bi ak ñi nga xam ne dañu nekk yore ay liggéey di feeku weer ñu am ci comité boobu xalaat yooyu ñuy tënk ñu koy mën a jox directement conseil de ministre xam ne kon mën nga ne àllarba bu xalaat boobu yegg ci président mu jël ci dogal yi ci war a jël loolu nag il faut saluer aussi que initiative bu baax la. Mm-hmm. moom la ñu tënk tey pour pour seet nañ koy doxalee doxal bu gaaw daal. d'accord léegi euh, beneen bi mooy fi lañuy jeexal jeexan jeexale gis nañ ne démb ci àjjuma ji. Mm-hmm. Euh, gis nañ ne am na jumaa yoo xamante ni tey euh, ak gouverneur bu Dakar arrêté bi nga xamante ni génn na ko ngir tëj jumaa yi ak jàkka yi. gis nañ arrêté boobu mais gis nañ ne ba léegi nii euh, marché yu bari ci Sénégal marché nit ñaa nga fa ba pare transport bi lan mooy saxalaat ci ci côté boobu. waaw man damay wax toujours Sénégal réewu diine la parce que réew moo xam ne am nga chance am fa Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul radiyallahu anhu am fa ku mel ni Sidi El Hadj Malick Sy fa ku mel ni Baye Niass am fa mel Seydina Limamou Seydina Insa réew mu Cheikh Omar Fouti Tall réewu jullit la. kon ñun jullit suñu ngànnaay mooy ñaan yàlla dama koy wax dem rek dem naa benn réunion boo xam ne maa ngi koy fàttali ay nit ne leen nekkuñu France nekkuñu États-Unis donte euh, Donald Trump gis nga ko jamono de mu jël ab làbbe ñuy ñaan ñëpp di ko gis réewu jullit lañu kon mënuñu ñàkk di ñaan di def suñu ay ndaje di ñaan man ni ma ko gisee mooy nañu fexe ba ndaje yooyu xam ne mbooloo dafay am ñu wàññi ko dëgg la. mais aussi ci biir ndaje yooyu ñuy jël les mesures sanitaires qu'il faut tey gis naa julli juma euh, Touba xalifa général des mourides bi muy dugg gis naa ñu jox ko ay gel mu raxas ay loxoom pour man lu mel noonu lañu war a def parce que tamit ñun ay jullit lañu mënuñu ñàkk di ñaan mënuñu ñàkk di toog di wàcc alxuraan di jàng xasaayit mënuñu ñàkk di def ay xadaratu juma di ñaan mënta ñàkk parce que feebar dafa ànd ak liggéey ànd ak moytu mais dafa ànd ko si di ñaan yàlla teggi ko ñun si gëm-gëm man loolu laa gëm ci wàllu. léegi transport beeg marché yi. marché yi décision bi ma gis am na solo ku mel ni ci leen dañ koy tëj ay heure di ko ubbi ay heure buñ ko tëjee nettoyé bu ma rafet loolu dañ fi dañ war nañ ko def bu yàgg kooku Burkina be ñu ngi koy def ëpp na 40 ans man 1990 laa njëkk a dem Burkina loolu ma gënoon yéem marché dañ koy tëj. 17h raxas ko bu fajaree 9h la ñu commencé bu 17 jotee ñëpp génn ñu raxas ko parce que marché aussi lieu de contamination la transport bi aussi eh, il faut ñu xool ko parce que surcharge yi mooy indi problème bi ak puis transport bi tamit am na ay mesures yu ñu jël boo xam ne ni nañu continuer di def transport di dugg ci oto yi eh, ak oto yu ndaw yeeg yu mag yi mais ñu jël ay mesures de précaution yi médecin yi yi médecin yi santaane ci tënk daal mooy il faut ñu def benn équilibre entre suñu diine parce que aussi bu ñu seytaanee bu ñu seytaanee yàqal suñu diine ba dépp lu ñu daan def luy rafetal diine di rafetal réew mi ci wàllu lislaam ñu bàyyi ko loolu te si beneen affaire la ñun du ay du ñu ay yéefar ay jullit lañu mais ci biir loolu ñuy toppatoo suñu diine ci jàkka yi ci mbooloo yeeg yooyu tamit euh, ñu tenir compte euh, instruction yi nga xam ne médecins yi spécialistes joxe nañ ko pour maladie bi bañ a yaatu kon benn benn benn benn jeu bu équilibre bu difficile la mais yaakaar naa sénégalais yi am nañu. maturité maturité boo xam ne. loolu nañ ko mën a def. d'accord léegi euh, lan ngay tàggoo euh, Modibo Diop. waaw man kay li may tàggoo rek mooy mooy mooy euh, ñu sàkkuwaat ñun ñëpp jullit yi sëriñ bi wax na ko ci suba xalifa naa les mourides damay wax saa su ne jullit lañu jullit bu ko nattu tabee dafay tuub mooy tuub sëriñ Salim Mbacke da dégg mu ko daan wax nee nañu tuub sàkku sàkk sarax sàkku njéggalu yàlla sàkku mu dimbali ñu. loolu mooy suñu wàll ci mbir mi ba pare nag ci biir loolu nag loolu baatin la ci biir loolu ci yi ñu góorgóorlu bu baax a baax a baax ci respecté conseil yi nga xam ne médecin ñu ngi koy joxe par exemple nit ñi bu ñu toogee nañu toogee nii nañu peut-être am na benn période nañu takk max bu ñu yëgee dara seen yaram nañ nañ dem nañ dem ñu seet leen bu ñu gisee koo xam ne tamit euh, wóor na leen ne peut-être wére dina ñu wax ak moom ba yóbbu ko ñu seet ko ndax contamination yi bañ a yaatu. man daal message boobu laay laay laay laay gën a jox suñu mbokk Sénégalais yi et puis di baalu ak ñëpp ñu ñu ñaan suñu borom lii yàlla jëlee ko fii si réew mi. Mhm. woyefal ko ba du lor ñu ba du loraate woyefal ko ci jullit yëpp ci àdduna bi ba mu génn ci ba xam ne dañuy toogaat ëllëg réew mi taxawaat ci doxalin woo xam ne ñëpp dañuy xam ne lii nattu bu fi jaaroon la rek mhm. waaye yàlla indi na ndimbalam parce que maa ngi wax toujours. fii ak un an un an et demi ñu ngi jëm ci exploitation pétrolière. Mhm. yooyu si yeneen enjeu la. Mhm. ñu ñaan yàlla liy jeex gaaw ba nga xam ne Sénégal day duggaat ci naataange boo xam ne. Mhm. dañ naan ah sëñ Jili de suñu at mi ñu fi jaaroon metti na waaye ñun ñëpp ñu ngi toog. réew maa ngi doxaat ñiy liggéey am na ñu dara ñi feeku weer am na ñu dara yi eh, nga xam ne ñoo toog ci kër yi tamit mënuñu ndax amuñu liggéey ñiy liggéey ñu ngi leen di dimbali. ba ku nekk gis sa bopp ci réew mi ni muy doxee. gis mooy suma suma yéene ci Sénégal vraiment. jërëjëf euh, mbokk yéen ñi nga xam ne yéen doon déglu réew mi FM seen émission pencum réew mi tey ñu invité woon moo Modibo Diop ingénieur polytechnicien expert consultant international en énergie eau et infrastructure kon ñu leen di sant bu baax di leen di gërëm di leen jox di daje samedi bi di ñëw jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm.